seen amul ci réew mi benn borom kër boo xam ne boo tëddee da nga nelaw ba yandoor ndax réew mu mitti jot na ngeen gestu góorgóorlu yi dimbali leen ndax li waroon a am ci réew mi bu fi amoon suñu doom yi duñu dugg ci gaal yi di tayle seen bakkan ci géej gi ngir di wuti lu gën kumba am nday ak kumba ñàkk nday gi justice Sénégal di doxee mu ne ko dafa war a dakk ngeen fexe ba sénégalais yépp bokk yam ca kanamu justice sursoi nañu sëriñ Ibrahima Mbay mi doon wax ci turu famille bi ba mu waxee bu nuppi Amadou Ba yàccam dana yasar aw yaramam sumeeku Abdoulaye Mbay peex mi mu àndaloon sax mu ko doon jottali mujj gi aw làmmiñam da koo réer point actu mel yaakaar bi di amadu Ba bu bëggee dégg son excellence monsieur le président bari yu mu war a li ci réew mi laata ñu yegg ci élection présidentielle yi 2024 ci yi mu war a lijjanti yéenekaay bi nee nañu njëgu courant bu seer bi yokku saa su nekk dem bay maasaate war na ko lijjanti te nag su bëggee xam coowal courant li mu mën a yàq cim réew na laaj Abdou Diouf ba mu laaj Abdoulaye Wade leneen lu journal bi gis mooy Amadou Ba mi waa Benno Bokk Yaakaar ngemb ngir mu bëre ci ay ministre am ba tax mu confiné leen ci réew mi nee na leen nañu wàññi tukki te toog ci réew mi lu ñu war a lijjanteeti bitim réew ngeen bàyyi kook ambassadeur ya fa nekk te yéen ngeen toog ci réew mi libéré wu libération dañuy xibaar ne Ousmane Sonko mi ñoñom yi di sàkku ñu libéré ko Ousmane Sonko xamaat na démb ca pavillon spécial Cheikh Tidiane Dièye bu yeeyu askan moo ko wax démb nee na Sonko dafa def malaise bu garaaw a garaaw ba perte connaissance réanimation bi ci xëtamu njëkk mi ngi ñuy wax ne Cheikh Tidiane Dièye mi président bu conférence malaise bu mujjee réanimation kenn ci awakam di maître Ciré Clédor Ly ni ñu ci Vox Populi Ousmane Sonko nee na li mu bëgg mooy ñu jëlee ko ca pavillon spécial ga mu nekk jamono ji ca delloo ko ca kaso ba avocat bi ne li mu jàpp mooy Ousmane Sonko dafay bañ dara dal ko ñu gàll ko ci ndoddal ñi ko yore ci hôpital ba moo tax mu bëgg ñu jëlee ko pavillon spécial delloowaat ko ca kaso bi bi xotaan bu mu jóge woon réew mi quotidien jànge ci ne Ousmane Sonko ba tey moom Ousmane Sonko l'observateur mi ngi ñuy wax ne ay awakam sisir nañu Sénat di commission électorale nationale autonome ngir ba ñu jox ko ay fiches de parrainage am ñoom avocat yi L'Obs nee nañu dàq nañu li waa direction générale des élections wax ne moo tax joxuñu Ousmane Sonko ay fiches de parrainage agent judiciaire de l'État Les Échos mi ngi wax ne moom it bàyyeegul Ousmane Sonko ba léegi jël na ab ab yongom démb dem si Ziguinchor déposé ji ab recours ca taabali greffe bu tribunal d'instance ba lisi Sabassi Faye ne nañu bindaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi loolee la agent judiciaire de l'État bi ne du ko dégg ñu déggee mi quotidien ne étudiants yi ci réew mi ñoo ngi waajal ab grève nationale ngir di ñaawlu tëj gi ñu tëj bu Ndakaaru journal lay fa nañu li tax ba campus social bu université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru mën a gut a ubbi mooy conseil d'administration bu COUD centre des œuvres universitaires bu ndakaaru ca seen dajam kerek ma daf ci am yu conseil d'administration bu COUD bi ne na ko COUD réglé ba noppi ñuy soog a ubbi ñu ubbi journal bés bi fekkaat fa coowal université yi yéen kay bi dañuy wax ne li ñu fi dundoon ci weeru juin gii weesu mi ngi xeeñ ci université taxaw nañu temm ne dañuy xeex ngir ñu démarrer cours yi ci jamono jooju bulletin de renseignement yi xamle nañu ne sagara nga xeeñ arène bi ñu wax ci lamb ji ak l'observateur mi ñu xëy xibaar ne Ama Baldé danañu ko convoqué ca kanamu conseil de discipline bu CNG bi li tax ñu wowoon ko keroog ci face to face diggam ak Modou Lo te demul loolee la war a dem lijjanti ko ca kanamu CNG bi li mu def moom Ama Baldé l'observateur mi ngi ñuy wax ne ay daan mën na ko cee fekk daan yu tàmbali ci juróom benn di weer yu ñu koy suspendre ba juróomi at yu ñu koy suspendre. Touba Darou Salam Kaw. ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di bokk ci programme bi national international